jëriñ tur bi naka la. Taïba Ndiaye laa tudd waaw. Euh, yéen a yor euh, wàllum organisation euh, Massalikul Jinaan rawatina ci weeru koor bi ndogu li. waaw ginnaaw bu ñu ci jiitalee Cheikh Mahamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom lu fanam si wér ay cëram di ko ñaanal taalibe bu mag ba murit ba sëriñ am lu mu di mbenda di ñaanal suñu bun ci kër Cheikh Ibrahima Fall sëñ Cheikh borom Mbawor. di siyaare Cheikh Mouhamadou Bachir moom sëñ Abdou Khader waaye di siyaare suñu jëwriñ El Hadji Bakkiou Faye waaye suñu imam ratib Cheikh Mouhamadou Bachir Lo waaye it suñu jëwriñ coordination muy sëriñ Samba Diaw ak euh, sëñ Abdou Khader ak mboolem ñi toftalu ci moom waaye it suñu jëwriñ organisation muy sëñ Babacar Mbaye ah suñu porte parole sëriñ Modou Mbaye Samb daayira xitma Masaalikul Jinaan ñu jiital ma ci liggéeyu daayira bi ginnaaw bu ñu ci jiitalee suñu jur yooyu ñuy wëlbatiku wàccee ndigali ci ñun ni ko gis rek tey noonu lañ ci nekk woon ci bis ñu génn yëpp muy balaa heure bi tembe dina fekk liggéey yëpp yemb ñu ubbi bunt yi installé mbokk yi nga xam ne ñoo fi ñëw ngeen dogu si ñu toog toog bu dal toog bu am yar toog bu am teggin ñu xaar waxtu yu jot ñu nodd ñu dog euh, Massalik teewul ci wàllu organisation tam dañu am seen waañu bopp ngir euh, jàppale ñi nga xam ne ñoo fas yéene ñëw di ndogu si. naka jekk bi fii dee Masaalikul Jinaan ba léegi weeru koor gu ne El Hadj Mbacke yu fay dinañu jox ñu togg ay xéewal waaye defar ay kafe ak meew lu jëm ci ndogu li nga xam ne lii tey yaatoon na yaatu goo xam ne day mel ne liggéeyam boobu moo barkeel ba mu toll ni moom xamoon na kon fi ñu jëm ñun ñoo xamuloon rek fi fi mu jëmoon waaye moom. xamoon na fi mu jëm ndax sëriñ bee ko jiital ci liggéey bi léegi euh, xayma gi en gén en réalité par at lañ koy waajal wala alal gi nu muy tooglu en général par jour wala dañ koy waajal par at moom la xam nga fii moom du loo xam ne dañ ko budgétiser ba xam ne lii lañ ciy def at mu ne moom weeru de teru rek mu yëkkati moom li mu am moom sëñ Mbàkke ne lii laa am lu ko ci fekk mu def ko ci daayira bi nag bi mu juddoo ba léegi moom dafa gis ne liggéey bu war a yaatu kon bala ñépp yëg moom na xelu teel a ñëw laataa jumaa ji noppi la daan def moom weeru jot mu dajale addiyaam membre bu nekk ñuy ne la sas nañ la nangam nga dajale loolu ñu xool li nga xam ne moom lañuy soxla ci koor gi muy ay baraadaak ay koppak ay kaasak ak yu mel noonu ñu jënd ko boole ci ay koppar ñu jébbal ko sëñ Mbàkkiw waaye bi jumaa ji ubbee nag Mbàkkiw dañuy yëkkati suñu addi rek ñoo toftal ci addiyaam yoo xam ne ndax ki xam ne daa yor géej ne la indi sa kopp ndax nga sotti ñu bokk da indi da indi li nga am. mu néew mu bari boole ko ak li ko suñu borom dimbalee moom mu jaxase loolu ñun ñëpp ñu bokk yiw yi ndax loolu la ñu yéene. mais te seetlu nañ ne am na ay daayira yoo xam ne ñoom it ci yiw gi la ñu bëgg moo tax dañuy gis ne chaque jour presque ñaar jàpp ñett daayira dañu jógee ko fu nekk ci senegal dajaloo fii ci Massalik ngir rek ñëw def seen participation. alhamdulilah loolu it ci diggalu sëriñ bi ci moom lañ koy jëlee moom moo moom lañ jiital ci murit Ndakaaru yëpp. sama am yéene bokk ko ñëpp war a dajale ñëpp mun nañu liggéey bi nañeen ko yaatal daa yër xitma Masaalikul Jinaan fii xatut daa war a yaatu sa fi war a ñëw dëgg-dëgg gisagoo leen ñooñu liggéey bi ñu ko war a doxal dëgg-dëgg gisagoo leen waaye nag mujj possible bu mu réer seen loxo bu mu leen dal nañu fexe ba lépp na yaatu ren ñu njëkk def initiation ba eh, eh, initié ne dañu woo daayira yi coordonné ak daayira yi nga xam ne jotoon na leen a xam fii daa dimanche bu ne ñu fi ñu di fi defi réunion ñuy def par fin du mois ñi nga xam dañuy def par quinze di fi defi réunion nañ leen toog waxtaan ak woo leen ci liggéey bi nga xam ne mënuñu koo ñàkk ci ñoom ñu àndandoo def ko waaye néewuñu woo daayira bu ne boo ñëwee da ngay indi nangam wala da ngay def nangam kaay jàppale ñu ci organisation liggéey bi lañ soxla waaye daayira bu ci nekk nag sa volontaire la nga man a volontaire ne lii maa koy defal sëñ Touba nga ñëw ne man dinaa indi café wala dinaa indi mburu sàngam wala dinaa defar nangami sandwich ñu ne la bismillah wutal la waañ ci waañ yu mag wi ñu yor ñu ànd ko yow ñu ñu ñu détaché commission yi ak sous commission yëpp jaxase ko ci liggéey bi ba ku ñu gis xam ne ñii lenn lañu duñ ñaar ñu àndandoo liggéey bi waaye bari na ay daayira yoo xam ne euh, wax dëgg yàlla nii nga ko waxee noonu dong la sa léeg-léeg lu jëm incha allah noonu lañ ko bëgg a doxalee ñoom moo tax bépp daayira boo xam ne da ngaa jàpp ne war ngaa mën a dem Masaalikul Jinaan ngir wut fa barab ba war def ngir xitma ci laylul xadar ba yeneen bis da nga da nga jokkoo ak waa daayira bi ñu ànd kook yow ndax bëgguñu gisub daayira rek ñëw indi bagaasam beru nit liggéey dañoo bëgg lépp ñu ànd ko mu nekk loo xam ne organisation mucc ayib lañ ciy soxla ndax ñun loolu moo ñu war ñu fexe booloo doon benn suñu buumu yàlla gis wala nga bokk ngoy leen ci sa bu leen taqali ko sëriñ bi ci loolu rek lañu lañu la ñu doxloo mbooloo mi fi teew mën nañ koy xayma par jour li fi teew gis nañu ne daal fi mu toll nii moom fees na dell mais en général du yem sax ci biir ndax day fees ba mu nekk sax ci biti euh, ñoom ñëpp war a xewlu est-ce que tamit yéen a ngi am satisfaction ci ñooñu ñëpp. bu baax a baax baax ndax ab murit moom li mu am rek mooy jukk ngir dox dem ci sëñ bi. bu jugee dem jëm ci sëñ bi sëñ bi koy gàttandu kon fii dañuy am yéene ñii ñëw it kenn indiwu leen sëriñ bi leen fi indi ñun ñii di liggéey mooy rafet dañuy jéem rek waaye sëriñ bee sottal lépp kon ñi ngi ci am mbégte bu baax a baax a baax waaye boo koy xayma tey wax nañ ne fii chaque jour boo ko doon xayma mën ngaa gis lu ëpp ñeenti junni gën ngaa néew ni nga am ñeenti junni nii nga seen ñu lala ay ay sappe bañ ko tàmbalee la suñ premier jour lañ sëñ mbàkk sappe su nekk nañ ko def ñaari yoon moo tax nga gis ñu jàkkaarloo nii waaye dañuy lal ba mu fees ba ci biti jëm ci sooro bu mag ba dañ fay ne ba ci mbedd mi ba ci bu soxna yi ba ci kaw nga xam ne waa jëy suñ daayira bu ñu am invité ko ci kaw lañ leen lalal fa la ñuy dem ñoom ñëpp ndogoo fa am nañ fi beneen saal boo xam ne bokk la bii fa la ñuy yóbbu yenn mag ñi nga xam ne bëgguñu peut-être ñuy jaxasoo xale yi ñu yóbbu foofu dalal leen fi ñu ndogoo fa kon day mel ne ñu ngi ñu ngi am ak cant bu baax baax baax sa it ñu ngi ci am mbégte bu baax ni ñu sëriñ bi téyel boppam ci liggéey bi di sant sëñ Tuubaa rek di ñaan si Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi te wér li fi xew démb ñëpp gis nañ ko muy iftaar bi sëñ Mbàkke mu joxoon ko ci digal mu def ko ndax barab bi day barabu Seexul Xadim boo xam ne daraa ngi fi sa nag nañ ñaan gudd fan ak fekke ci barke sëñ Tuubaa waaye fii daal moom moom ak cant gu rëy ngi fi am ku fi ñëw xam ne daraa ngi fi yére jërëjëf di sant bu baax di gërëm it suñu jëwriñ Alaaji di ko ñaanal dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo jàppale loolu ci liggéey bi saa su ne bu gestoo gis ñu la mu bëgg mu sant ñu ko ñuy ñaan yàlla may ñu kàttan ba lu mu bëgg di ñu ko sant ñu def ko ni mu ko bëgg ndax buñ ko defee sëriñ bi lañ ko defal sëriñ bi ko fi teg di nuyu jëwriñu soxna yi muy soxna maam Jaara Faal ak mboolem koo xam yaa ngi ci liggéey bi rek di ci liggéey ñu ngi leen di nuyu yéen jaar baax di saa suñu bàyyi bàyyi Seex Caw mi xam ne mooy bàyyi daara ji di sant sëñ Abdou Khadre Fall mi nga xam ne moom la ñu sëñ Mbàkke booleel muy tout tànk ci ñoom boole ñu muy suñu mag waaye mu jaxasoo ñun ñu ngi koy sant baax di gërëm ñëpp di leen jaajëfal di di gërëm waa communication daara ji jëwriñ Moustapha Diouf jërë ngeen jëf di gërëm it yaakaar naa chaîne bi mi ngi nekk enquête 221 di sant di gërëm daa mel ne ñëw leen fi benn yoon maa ngi leen fi gis di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal baax a baax